léegi aussi euh, Cheikh Bamba làmb ji fi mu toll. Mhm. gis nañ euh, activité yu bëri reprendre. Mhm. commencé nañ mhm. mois ñu ngi ko tëj. foofu message waaw foofu message bi ma fay lancé rek mooy barki démb bi ma lancé ak waa Lutte TV euh, bi ñu ma seetsee waaw message la bu yomb boo xam ni tamit bu ñu war a gëm. parce que yomb na mais nag ak rigueur parce que euh, Pape Dou Fall ak euh, du Diagne Diecko ak euh, ak Max Mbergane dama leen seetaan ci émission Lutte TV bi ak no émission DTV bi ma concentré wu ci mais ñu wax wax yu am solo bi ñuy waxee Max Mbergane expliqué ni arène bi parce que loolu lu ma xalaatoon la mais bi ma gisee ñu wax ko dama ci gën a kontaan parce que lu ma bëggoon wax la ci presse bi ne làmb ji war na mën a ubbeekuwaat. parce que ku ne xam na ni promoteur yu bari jël nañu seen xaalis dugal ci làmb ji mbëri nag boobu ba léegi euh, ñi champion yi ñu ngi entre entraîné subaat ngoon ak guddi euh, kon war nañu mën a waxtaan ak le ministre Matar Ba ñu waxtaan ak le président de la république di président Macky Sall ñu jéem a xool euh, nan la ñu nan nan lay joxe instruction ñetti ministère am yi muy ministre de l' intérieur ministère de la santé ak ministre de sports pour ñu ubbiwaat làmb ci nuñ koy ubbee. moom la Pape Abdou Fall wax dama rafetlu ko mooy ñu respecter mesure barrière yi parce que tey stade dëgg la mbooloo lay jël mais euh, mbooloo googu muy jël bu fekkee ni tey jii nii euh, am na euh, am nañu matuwaay yu doy am nañu ay gel yu doy ci bunt bi am ay masque yu doy am ay thermoflash buntu bi service d'ordre bu doy état dooleel ci promoteurs yi aussi bu ñu taxawee ci bunt bi mbër support amateur bu ñëw ak supporter bu ñëw taxaw ñu defar la thermoflash bu ñu la defaree thermoflash xool ni sa température baax na ñu bàyyi la nga dugg jox la masque def sa nga def jël sa loxo noonu tribune yëpp aussi ñu fexe tamit mu am ay éléments yu doy ñu nit tamit ñun tamit ñu dimbali leen ci ñu dimbali ci service d'ordre yi parce que mag yow yaa war a njëkk yar sa bopp am discipline tey bu fekkee ni tey président de la république tamit nangul nañu loolu ñu nit moom bu mu ñu gën a bëgg suñu bopp ñu ne nañu am suñuy matuwaay am suñu fulaak suñu fayda bëgg suñu bopp ba pare parce que ku ne xam na ni Covid bi metti na loolu daal yaakaar naa ne mesure barrière yooyu barrière yooyu buñ ko respecté Bachir làmb war naa mën a ubbeekuwaat li ci des nag ñaan suñu borom parce que yàlla moom moo jare ñaan yàlla buñ ko ñaanee mu musal ñu dina ñu musal il faut ñu nit tamit suñu xel ñu koy delloo ci yàlla. ndax lii yëpp suñu borom buñ ko ñaanee rek incha allahu rabi ñu gëm suñu bopp respecté aussi mesure barrières yi yàlla dina ko fi jëlee léegi incha allah loolu daal laa gis ni daal war nañ koo mën a ubbiwaat ndax euh, ñun promoteurs yi wax dëgg yàlla yàkkamtiwaat nañu làmb te aussi tamit euh, amateurs yi yàkkamti nañ ko te mbëri aussi ñi ngi am jom ñi ngi entraîné entraîné te xamoo kañ ngay bëree tamit dafa xaw a metti lool noonu yëpp tam war nañ cee mën a waxtaanaat suñu biir rek quoi. Mmh.